li mooy bunt bu lay jàngal ak tiim wa faraidihi ak faratay tiim wa sunani ak sunay tiim wa fadailihi ak ngeneelu tiim wa yi ak luy yàq tiim gis nga comme ni nga xamee ne jullit wu nekk war na ci moom mu xam ni ñuy jàppoo tiim tamit kazalik ndaxte alquran dafa waxoon ne bu fekkee amuleen ndox da ngeen la jugee koo ci tiim ndox ma jëm ci tiim kon sa obligatoire ni nga xamee ni ñuy jàppoo noonu nga war a xamee nu ñuy tiime wante néew na jullit wooy laaj nu ñuy tiimee mu wax la ko léeg sax am na si ñoo xam ne ñuy tiim dem ba ci miir war raay raay kanam ak bàyyi foog nañ ne lu muy tiim wala nga dem si kaw sa jaadu ba raay raay sa kanam foog nañ lu muy tiim lu may ak miir ak basa ak yu demee noonu dina la ko wax kenn du ci tiim ñu ci bëri na ñu tiim ci loolu ñàkk xam rek moo koy waral bu ñu attee tiim bi maanaam mooy jublu rek mooy jublu comme ni ko alquran waxee bu fekkee amuleen ndox mu ngeen jàppoo na ngeen tiim fa lam tajidu maan fa tey tayammamu saidan tayiba kon loolu alquran wax na ko bu ñu attayee mooy alqasdu mooy jublu comme ni nga xamee ne waxi imam Bushayri da nga koy fekk mu wax naan yaa gayra man yammama la aafuuna saaxata yammama woowu mooy maanaam qasada jublu na bu ñu al aafuuna jamu aaf mooy taalibul xaaji mooy koo xam ne dafay sàkku ak soxla amaana bu fekkee charan lañ koy firi mooy laab ak koj ak suuf woo xam ne dina làmboo ci massa cëlmaa yi ak ñaari yoxo dong ànd ak yéene wante mendam yenentu bi cundum kese lañ jagleloon suuf si foo mënta nekk ci kaw suuf bu la julli fekkee mën ngaa julli ci kaw euh, foofu le mën nga ci tiim wante xeetu njëkk ya mënuñ la julli lu dul sa jàkkee rek ak fu leen fu leen waxtu mënta fekk bu fekkee daal foofu daal jumaa amul fa foofu ñu delluwaat ba sa jumaa ja mën fee julli waaye wante yeneen tubi nag jégleel nañ ko xasaayis yoo xam ne yu kawe la amaana xikma yu tax ñu yoonal julli ñu yoonal tim kon mooy idraaku salaa mooy jot julli ca waxtu wa loolu mooy xikmatu mashruiyat yi yoonal gi ñu yoonal tim daal mooy doomi aadama fu ko waxtu julli mën fekk mu mën a tiim ngir jot waxtu woo wule wañu nattale amaan ci at moomu atum ñeent ca ci lañ yoonal euh, euh, faratay tiim ci lañ euh, yoonal tiim wante en même temps ci at moomu ci la Xuseyn ibnu Ali ci la juddu radiyallahu taala anhuma en même temps tamit ci at moomu salaatul xawfi ci la wàcce ci xaswatu zaatu raqaa naka ci at moom ci lañ xaraamal sàngara noonu na tegu xam lii baax na nga nga takku ko ëllëg ku nga mën ko yox wante sew sew yi yëpp ñuy jàng doo ciy takk dara xam naa ne mi ne baabu teemu lii mooy buntu ak tiim wa fada wa faraidi ak faratey tiim wa sunani ak sunay tiim wa fadailihi ak ngëneele tiim wa mubtalaati ak yu yàq tiim ah mu ngi commencé di la jàngal ana kan moo war a tiim mi ne tayemmama tiim na Mm-hmm. almaridu aji feebar ji wal musaafir ak aji tukki ji mm-hmm. ana lu ñu tiimal min lil fardi ñeel farata mm-hmm. wa nafil ak naafil aji feebar ji jaas na dagan na mu tiimal farata en même temps mu tiimal li nga xam ne mooy naafila naka noonu tamit ki nga xam ne dafay tukki tukki mu mooy yàlla moom it jaas na bu ko waxtu jotee te amul ndox mën naa tiimal farata en même temps tamit mën nay tiimal naafil kon daal nga xam ne tiim Euh, euh, sababam mooy tuxu jóge ko ci laab ndox jëm ci laab ak turabiya wante ñii tiim na ñett xaaj lañ mooy aji feebar ji nga xam ne amul kàttan ci jëfandikoo ndox ma ak aji tukki ji nga xam ne aji ñàkk ndox la euh, wala mu aajoo jëm ci ndox ma sax ngir naan am na ndox sa wante bu ko jëfandikoo bu ko jàppooyee mar mën na koy gaar mm. ah charee na ko déedéet duñ la teg mukk na la jàppul mm. mar di la fi dat ngay dee moo tax gis nga ab diina diina yusurun diina gi jàppandal la ak koo xam ne aji teew la te wér kooku tamit jaas na mu tiim kon ñii tiim daal ñett xaaj lañ anal mutayamimina ala thalathati aqsam maridun laa yaqdiru ala isticmaalihi wa musaafirun faqidu lilma aw muxtaajin ilayhi li shurb wa xaadiru saxiih ak koo xam ne aji teew la te wér moo tamit ne ma moom tiim na almarido aji feebar ji wal musaafir ak aji tukki gi maanaam bi ñu ko waxee mooy dina tiim képp koo xam ne aji feebar la moo an ak euh, aji feebar yi mooy kan ne mooy ki nga xam ne dafa ragal ci jëfandikoo ndox mi ngir ak loru wóor na ko ndox maa ngi wante su ko jàppooyee feebar mi mën naa yokk wala mën naa yéex a wér ila axiri kon nag ñu ne ko bàyyil ndox ma waa tiimal nga ci li boo tamit ne kon nag dina tiim képp koo xam ne aji feebar la bi maanaam alladi mi ne istimaali ma durran kooku dina tiim naka noonu wal musaafir aji tukki ji aji tukki ji mooy ki nga xam ne amul ndox wala nekk na ci moom sax ak ndox mi mu jàppoo wante ragal na ne bu jàppoo ndox mi eh, wala mu sangoo ko sax boobaa dina mar mm. mar gu jéggi doyoo woo xam ne dootu am fu muy fu muy naane te mën na loru wala sax dafa am bay bàyyi ma yu ma ànd ak te bu jëfandikoo ndox mi ci jàpp bàyyi ma yi duñu am luñ naan ah donte sax ab xaj la woo xam ne mazun xaj wu ñu tàgg la ci ak rëbbu ah kon nañu ne ko bàyyil njàpp li tiimal nga julli ah nga jëfandikoo ndox moom li moo tamit ne tey moom dina tiima tey moom a tiim na al musaafir aji tukki ji wal al marido aji feebar ji wal musaafiru ak aji tukki ji ana lu ñuy tiimal lil fardi ñeel farata wa nafli ak naafil kon wax na la euh, ki feebar ak ki tukki ana lan tiimal ñooñu mën nañ tiimal farata mën nañ tiimal naafila wa ama alxaadir ndaam aji teew ji ki nga xam ne dafa teew bi maanaam dafa teew te wér in sax ndem wér na kooku dee fii fardin farata rek la mën a tiimal dégg nga wa fil janaasati ak juleeg niw taa yi yeneen googu ràññeeku na bi maanaam bu ñu ne taayinat ñu ci bëri ñu wax naan mooy nii bi dafa bàtt na su ma génnee àddina dama diw julee wax di wérul li wér mooy ne mooy illam yu jët xayru bu fekkee ne ñi fa nekk si julleeg niw moom ren moo fa mën a jullee niw te moom kat am na ngànt jàpp kon sa ñaar tiim jullee niw mooy taayin a dem ràññiku na wante dugg na niw bi moom moomay bàttale ñu ne ah moom kan na ko jullee bu ko bàttale te mënta jullee niw nag kon taayin a dem ràññiku na mooy xalil li mu waxoon mooy bu fekkee amul kenn ku mën a jullee néew ku moom te moom kat ngantam ah, ti tiim la am kon bu waa dafay tiim jullee néew boobu wa tamit wa amal xaaja ndaam aji teew in saxa ndam wér na kooku daal fi fardañ ci farata eh, la mën a tiimal wa fi janaasa ak jullee néew taayinat googu ràññeeku na nga ne kaa mi ne laa jumaatin waxuma julli jumaa nag ah, julli jumaa du ko tiimal de naka noonu tamit wa ah, du ko tiimal aw sunna sunna wala ay sunna a ah, du tiimal mukk nag ah ngir ay naafila yooyu njëkk ñuy julli tusubaar nga naa ah, ñeent mu dawal ñeent rakk wala nangam mi ne sañu sañu koy def moom aji teew te wér may nañ ko mu tiim julli farata wala mu tiim julli niw wante julli jumaa am na ndox mu ne xaaral balaa mu fi nekk di jàpp amaan na waxtu jumaa bi jeex mu ne ah damay tiim ngir tiim moo gën a gaaw ñu ne ko ah déedéet da ngay dem jë jàpp ji euh, boo fekkee jumaa ji jeex nga dem julli sa tusubaar wante bu fekkee ne dafa am ngant na laal jëfandikoo ndox kon boobaa dafay tiim rek ko mën nañ koy tiim wante kan lañ wax ne mooy koy wér te du tiimal jumaa mooy ndox maan fi mu xam ne bu fi jàppoo balaa jàpp gi di pare amaa na waxtu wa jeex mi ne tiim a gën a gaaw xaaral ma tiim ñu ne ko may la mukk nga tiimal jumaa aw sunna wala ay sunna wala damay dawal nangam ci ay soog a julli ñu ne ko la ko tamit ne awa amala xaajan ndaam aji teew ki nga xam ne aj teew la in sax ndem wér na fi fardin ci farata lañ ko may mu naaf mu tiim wa fi janaasa ak julli niw ta yéena góog ràññeeku na laa jumaatan wax mu jumaanet aw sunna wala ay sunna kooku mayuñ ko mu tiimal te wax na la koo xam ne aji teew la te wér ci farata lay tiimal ak jën jële niw te aji na gu ràññeeku na maanaam koo xam ne aji teew la mu tiim ah mu tiim daganu ci muy tiim ngir julli ak jumaa wala muy julli sa ak niw lu may ràññeeku na bi maanaam moom dong fa nekk moom doo nga fa mën a julli niiw wante bu fekkee keneen nag fa moom sañ ta tiim ngir julli niiw woowule te du wér mukk nag muy tiim ngir jumaa lu may xarat nag xarat mooy ne bu fekkee ngir xatu waxtu la ci jëfandikoo ndox mi wala ak sàkku ndox boo leer na ko ndoxam fi wante su ma ko dama mën naa soso ak feebar wala nangam ak nangam mm. kooku jaas na mu tiim wala sax amul ndox mu ne ah man kat su may dem di uuti ndox balaa may ñëw waxtu bu jot ñu ne ko amal ah, naa tiim lu may loolu lu ñu namm ci waxtu mooy al muxtaar awi daruri loolu ci waxtu woowu waaye jumaa daal du dagan ñeel aji teew ji wér mu koy julli ci ak tiim donte ragal na ak faatu waxtu wa ci lu gën a siiw ah bu fekkee ne waxtu da kaa faat dafay wattee jumaaje julli ko ak tusubaar wante ñii nag kañ la ñuy tiimal amma misaalu ko e, janaasatan taayanat illaa janaasatan taayanat misaala mooy ne bu fekkee nag julleen wi mbooloo ñoo xam ne muqiimoona saxiixoon ñu sax lañ te ñoom ñëpp nag wante amuñ kenn ci koo xam ne mu ngi ca mbooloo ma koo xam ne mutawaddi aji jàpp la loolu mooy loolu mooy leen illaa janaasatan taayanat lu mooy ni woo xam ne wala fii jinaasatin taayanat loolu mooy mbooloo ñoo xam ne teew nañ ci jule niw ba wante ñu nekk mbooloo moo xam ne aji sax lañ te wér te amul kenn ko xam ne aji jàppalu ci foofu ci mbooloo moom li loolu mooy eh, janaasatun taayanat wante ñi nag ah, a ñuy ti mooy in adimu ndéem ñàkk nañ kifaayata ak doy min mahin ci ndox bu fekkee ñàkk nañ ak doy ci ndox bi maanaam am nañ ndox wante ndox mi doyul leen kooku man naa tiim wax jii muy wax dafay leeral sabab bi nga xam ne doomi aadama bu euh, bu ko gaaree dafay jugee koo ci ak laab ndox jëm ci laab ak tiim te maanaam muy charte ak daganal ak tiim bi maanaam dagan na ñeel képp koo xam ne aji feebar ak aji tukki aji teew te wér mu toxu jëm ci ak tiim keñ mooy inaadimu ndem ñàkk nañ kifaayata ak doy min maay ci ndox bu fekkee daal lim am ci ndox ndox mi doyu ko mm-hmm. kon boobaa mën na tiim bu ñu xayru kaaf nag kooku mooy koo xam ne dina wàññeeku ci raxas ak cërëm ya mm-hmm. loolu mooy xayrul kaaf min aw xaaf wala mu ragal zu suq min borom ak mm-hmm. xam ne dafa feebar mu ragal masida daa yokk jàngoroom wóor na ko daal ndox mi am naa ndox daal wante su ma jëfandikoo ndox mi mm. amaana sama feer wi mën naa yokk mm. kooku tamit mën naa tiim mm. moo tamit ina addimu ndéem ñàkk nañ ñoom ñii mooy koo xam ne aji feebar wala te na er, er, ñàkk nañ ndox moo xam ne kaafi na la li tuurim loolu lay wax ne ina addimu ndéem na ñàkk nañ kifaayata ak doy min maa ngi ci ndox mën nañ tiim aw xaafu wala mu ragal sa zu suq min borom ak feebar mazida daa yokku ak jàngoro koo xam ne daal am na ndox wante su ma ko jëfandikoo sama jàngoro man naa yokku man naa tiim aw min xudusi daa wala sax eh, amut jàngoro wante dafa ragal ne su ma jëfandikoo ndox mi mën na mën naa am feebar bu mu sos bu sos ci man kooku tey mën naa tiim aw min xudusi daa wala sosu feebar wala sax mi naa addi mën naa jëfandikoo ndox mi am naa ndox waaye su ma ko jëfandikoo mën naa yéex a wér aw but i shifa wala yéex a wér ah lii nag yéex a wér wii bi aadatin ci aada maanaam ci aada la sukkandiku ba ne su ma jëfandikoo ndox mi mën naa yéex a wér aw an tabibin wala ci am médecin arifin ba daaje xam wala médecin bu xam moo na ko yow kat boo laalee ndox ah man man ngaa mën ngaa ñàkk gaaw a wér su ko defee nag ñoom mën nañ tiim loolu wax ina addimu ndéem ñàkk nañ ina addimu ñàkk nañ kifaayat na ak doy ah, min ma in ci ndox aw xaafa wala mu raxal zo suq min borom ak feebar eh, masida daa yokk ak feebaram te ko waxee mooy koo xam ne aji feebar joo xam ne ragal na eh, ragal na ci boppam wante atte na ci jëfandikoo ndox mi aleykum salaam ci dooleeku feebar boo xam xaasilu bi feeñ Eh, walla koo xam ne daal eh, bu jëfandikoo ndox mi eh, man na sosu ak feebar wala mu yéex a ak wér ñii ñëpp mën nañ tiim wante yéex a wér woow na ma ma daal ci aada la ko xamee wala ci médecin woo xam ne moo ko xamal ne ko boo jëfandikoo ndox mi daal mën ngaa yéex a kon ñii sañ nañ jàpp sañ tiim waaw tamit nee naa di mu nem ñàkk nañ ki faayida ak doy min maa ngi ci ndox aw xaaf wala mu ragal suuf suq min borom ak feebar ma daa yokkub jàngoroom aw min xuduusi daa wala sosug feebar aw buti shifa wala yéex ak wér bi ci aada aw an wala ci médecin arifin ba daa ji xam ba mu lay sabab yi nga xam ne mooy waral ak tiim aw wala sa in xaafa da nga koy taqdim ngeen nga jekku firmi aw wala in xaafa ndem ragal na ala nafsin ci bakkanam wa ak alalam wala koo xam ne dafa ragal bakkanam wala mu ragal ak alalam ragal bakkanam mooy ne feekat am na ndox mm. wóor na ma man naa fay dem mm. wante su ma fa demee am na ay bandi yu fa nekk mën nañ mën nañ dal sama kaw ah faat sama bakkan ñu ne ko tiimal wala koo xam ne sa wóor na ko ne eh, ndox a su may dem ndox mën nañ jël sama alal ñu ne ko ah kon na mën ngaa tiim kooku tamit sabab yi nga xam ne dafay waral tiim moo tamit awwala sa in xaafa ndem ragal na ala nafsin ci bakkanam wa maale ak alalam bokk na ci sababu timi aw wala sa samanul maa yi njëgug ndox ma namaa yokk na iji iji xaafan ci jégg doyo wala ñoom kat bu ñuy jàpp dañuy jënd ndox ndox mi ne dafa xëy yokk yokk wu jégg doyo kon nag bu fekkee dafa yokk ju jéggi doy ba yokk ci sulus wa boobaa tamit jaas na mu bàyyi ndox ma ah, dem ci ak tiim donte dafa nekk koo xam ne xan ni yéen ku oomal la sa ah alal mashhur ci wax ji gën a siiw mooy ne intixaal ila tayamum dafay tuxu jëm ci ak tiim waaye tamit aw thaman aw thamanul maayi wala njëgu ndox ma namaa yokk na yokk koo xam ne ijxaafan ah, ci jéggi doya kon na saña tiim aw xaaf wala mu ragal bis ci imaara ci jëfandikoo ndox mi mm. wala mankat su ma jëfandikoo ndox mi wala ma jëfandikoo ko ci ak sangu ci janaaba mm. wala lu mel noonu mm. ah loolu la ragal kon mën naa tiim aw it talab wala muy wala la wu ñeel ko xuruju eh, xurujul ixtiyaar yi ci génn ak waxtu wu ñu tànn wa insaab dem dem dem na wala sax nee na man kat su ma jugee fii dem di uuti ndox balaa may ñëw waxtu woowu dina jeex ñu ne ko nag ak eh, jàppul ndaxte dab waxtu moo gën dab laab moo tamit aw xaaf wala mu ragal bis timaali ci jëfandikoo ndox ma awit talab wala mu sàkku lu ñeel ko xuru jox tiyaar yi génn ak eh, waxtu waxtu wu ñu tànn wa insaam dem dem kon boobaa tamit sa ñaa jàpp sa tiim bàyyi li nga xam ne mooy ndox ma jàpp kooku de bu ñe bu sakku ndox ngir waxtu muxtaru genn fo xamne woor na ko bala may ñew duma am ben rakka ben rakka moy ci ñaari du ko jot ci muxtaru du ko jot ci darur bi kon boobaa sa ñaar tim e, bàyyi njàpp kon na loy moy sabab yi nga xamne moy waral ak tim nopi na ci lool mo ngi lay jangal ana faratay tim, yi ya. mina furudu faratay tim, nga ka amina sun jurum la dalee na moom juróom la tudd wante boo xoolee waxam ji da fekk juróom benn nga faratay tiim juróom la tudd comme ni mu waxee wante da ngay xool ne li mu indi juróom benn la waja njëkk mooy yéene a niya wa saidu tahir ñaara ngoog wa darbatul ula ñette ngoog wa masul waji ñeente ngoog wa masu yadayni ilal koayn juróoma ngoog wal mu waalaati juróom benn ngoog te moom nee nag xam sun juróom wante boo xoolee lim lim wala lim indi dangay fekk juróom benn la wa tamit nag furuudu faratay tim nga ne ko juróom la waja njëkk saidin mooy pàkk moom loola lim wante mooy pàkk taxura góog laab na njëkk mooy pàkk na maanaam bu njëkk ci faratay tiim ci tartibul man ni mooy asaxiid taahir mooy pàkkuulaab bu ña pàkkuulaab na mooy lépp loo xam ne yëkkatugu na ci anam suuf mooy feeñ ci kaw suuf wante mu nekk min jinsiha ci xeetu suufoo lu mel ne suuf wala beeñ wala ak doj wala ban buy remmi-remmi wala ak mbell ah, mbell moo xam ne du wut ak xaalis ah, ak du wut xorom tamit du wut ak tusngal wala mbel ak weñ wala përëm yooyu kenn du ci tiim wante daal na nekk ah feeñ suuf soo xam ne dafa feeñ ci anam suuf soosu wala mu nekk pak woo xam ne ci anam suuf soosu la e, mu nekk jin saa xeetu suuf suuf soosu la lañ mën a tiim te dinañ sartal dagan ak tiim ci pàkk mooy mu nekk melokaani pàkk woo ci xeetu suuf soosu la mu nekk ay at euh, suuf boo xam ne soppeekuwut ci njëf njëf njëfandiku doomi aadama ci ak togg lu mel ne ak laso wala lu mel ne ak peinture yu demee ne yooyu kenn du ci tiim naka noonu tamit kenn du tiim tamit ci lu mel ne ak mboob lu mel ne ak basan lu mel ne ak lalto lu mel ne ak dóom lu mel ne ak këriñ yooyu kenn du ci ak tiim maa tamit nag furuudoo farata tiim xam su juróom la mm-hmm. wa ci mooy pàkk tawar gug laab na mm-hmm. ñaareel ci farata tiim mm-hmm. mooy wan i yéeneel istibaaxatan sàkkoo daganal ah, ak farata tiim googale bi maana ñaareel ba ci farata tiim mooy istibaaxatan salaam mooy sàkkoo daganal julli wala lu dul ak julli lu mel ne ak tawaaf lu mel ne laal kaamil alquran ndaxte tiim laa rafal adadu yëkkati ak toj loolu la wax ne li an na tayammum laa yarfawu ala mashhur waaw lu gën a siiw mooy tiim du yëkkati ak toj wante am na ñeneen ñu wax ne tiim mën naa yëkkati toj comme que moo wut ak njàpp lépp lu njàpp man rek war na koy mën kon mënta ñàkk buy tiim mu wax ni nawitu istibaat salaa min al janaab min al janaaba yéene naa sàkkoo ci janaabo mooy tëj mu mag moo tamit wa sammi na tudd al akbar tëj mu mag ma donte yéenoon kon doy na ko fil asxar ci euh, mu ndaw ma wala akbar ak bu mag ma min xëyri tasmiya lil akbar ci lu mooy tudd ak tëj mu mag ma kon boobaa dina doy na wante wan xi yéeneel istibaat sàkkoo daganal julli mi ne wasami tudd na al akbar toj mu mag ma ñetteel ba ci farate tiim mu ne mooy wa darbate ak dóor al ula wu njëkk wa ba ñaar darbatul ula liñ ci namm mooy watu mooy teg ñaari loxoom yi muy teg ñaari loxoom ci kaw pàkk wa du woon ne mooy dóor ci buntu wa rek ah déedéet mooy teg gi muy teg ñaari loxoom ci kaw pàkk wa loolu mooy ad darbatul ula muy dóoru njëkk loolu mooy ñetteelu faratey tiim ñeenteel ba ci faratiti mooy alfawru te mooy almuwaalaat mooy méngale sama bu ña sàmm maanaam hunaa foofule lil waji ñeel tilmayim wal kafay na ak ñaar tinq loxom mina am mi matale na wajan tilmayim tilmayim nag matale ko mooy nga dalee ca sax waay karaw ba ci sukk bakkanu ak tamit yaatuwaay kanam ga da ko dalee ci noppi bi feneen fa wante loolu mooy faratay tiim yi nga xam ne juróom la tudd te mu nekk juróom benn amma mooy matalik cilma ci masa maa daal masa lu ko ci sax waay karaw booba wax nga xam ne moom lañ baaxoo jëm ba ci ron sikkiñ wa donte sax duwut borom ak sikkiñ ku mel ak jigéen wala am na di ñoo xam ne yàlla bindewul na ak sikkiñ terewut buy masaa dafay ñëw ba ci ron sikkiñ wa dafay ñëw ba ci ron sikkiñ woowule juróom benneel mooy masu yeday mooy masaa gi muy masaa ñaari loxoom jëm ba si ñaari tikki njar ci biir ak ci biti wante buy masaa nag bu fekkee dafa takkoon jaaru daf koy daf koy summi donte jaaru dafa xat wala sa jaaru xatu dafa maa dafa yolom man na koy wëndeel lu ko neexee terewut daf koy summi ah mas masaa nag war na ji buy masaa mu masaa barab woowu te buy masaa mu xallil ba baaroom yox ci bitiga ak ci pegg yëpp mu bàyyi ko xel bu koy masaa mu masaa lépp am la wax ne furudu faratay tiim xam su juróom la saxiidi mooy pàkk taxawra ngog laab na wane xiyéeneel istibaar sàkkoo daganal wa sami tuddal al akbar wu mag wa wa darbatal uula ak dóor wu njëkk wa wa fawra ak mingile ak toftale sàmm foofule lil waji ñeel cilmaay wal kafeen ak ñaari tënk ami matalal wajaan cilmaay wa noppi ci loolu mu ngi dugg ci ak sunnay tiim mi na wa sunna sunnaal nañ tiim kooku ñeenti la di la indiwu ko waaye te sunna sunnaal tiim te sunu wu njëkk wa masu yéday mooy masa ñaari yoxoo lu ko dalee ci tikki ñeero jëm ba sa ci ñaari coñcee loolu wax ne masu masa mi ko ci loxom lil mil faqayni laam googu maana maa ba ànd ba ci euh, euh, ñaari euh, mil faq ñaari coñcam ya mooy ti wu njëkk wa ñaareel sunna mooy wa tëj wa wa jaddit yeesalal ab darba dóor wa maanaam tajdidu dar bi yeesal ak dóor ga lil mas eh, yaday ngir masa ñaari yox yi bi nga ko waxee daal mooy ab darbatu saaniya mooy dóoru ñaari wa loolu lay wax naan wa jaddi yeesalal ab darbata dóoru ñaari wa ñetteel ba su eh, eh, sunay tiim mooy waratib toftaleel maanaam athaalisa tartibul masi mooy toftal masa wa bi maanaam mooy mu jiital masa cil may wa ci kaw masa ñaari yox yi loolu mooy war a tiib toftale ñeenteelu ci farata tiim mooy war fiq ah, na nga jàppandal bi maana na nga toxal la aju ci ñaari yoxe yi ci poussière gannaaw bu leen fëggee ñoom ñaar ak fëgg gu woyeef ngir masaa cilmaay ak ñaar yoxe ye loolu wax ne war fiq na nga jàppandal bi maanaam na nga toxal boo tegee sa ñaar yoxo dafa am bant yi aju mooy nga toxal yooyu fëgg leen ndànk ngir masa cilmaay ak masa ñaari loxo ya kon su nay euh, tiim ñeent yooy la wa ci njëkk mooy masu yaday minal kuwayni ilal mirfaqayni ñaaril wa mooy tajdiidu darbi li masul yadayni te mooy ad darbatu thaniya نتلو ماي ترتيب المسيح بأن يقدم مسح الوجه على مسح اليدين نتلو ماي نقل ما تعلق باليدين في القبار بعد نفضهما نفضا خفيفا لمسح وجهه ويدين لا يجنجني وارفق ماي تنانا جابندل mi معتمد وسنة سنة عندن كي سنة التيم مسح مسامي يدين تكي كو لوخو ليل مرفقين عندك بس ñaar ciënciya wa jadd yeesalal dar ba dër wa waratib toftalal war fiq na nga eh, jàppandal noppi na ci loolu mu ngi dugg ak yow ci ngeneel ak tiim mi ne wax fadlu ngeneel tiim mi ne atturaabu mooy suuf ngeneel tiim ñeent la wu ci njëkk mooy ak tasmiya mooy wax bisimilah wante dile moom jiitalu ko wante mooy wax bisimilah comme ni nga xamee ne ñee woon ci ngëneel la ak jàpp ci waxam jëm doon wa tasmiyatu kal xusli wa tayammumu ñaare wa ci farata ti ngëneel la tiim mooy tiim ci ak suuf ah walis ak xeer ak beeñ ak yu mel ne noonu ndaxte tiimee ci suuf moo gën waaw moo gën nag dalee na tiim ci xeer ak beeñ ah dagan na eh, nekku ci ba tey woo fadlu ngëneeleg tiim daal aturaab mooy suuf boobu moo ci njëkk wam sax masaxal zahara saaid saaidaka ginnaaw xasabu sa mooy ginnaaw xasab buñ ko waxee xasabu xasabu mooy lii wante lii mooy zahiru xasab mooy nga masaa ko fooy mooy nii ngay def masa jëm ni le hakaza وتمن وامسا مسال زهر ساعدك جنا وقصب الايمن بين الجون انا لو كاي مساي من بكف اليسرى تي تنك يوخو تاميو تنك يوخو تامو موي لي loxo ndeyjoor waa ngi noonu zira waa ngi nii biti gaa ngi nii tënk wi nii nga koy masaay ana noo koy masaay nag noonu nga koy masaay wabat noo ak biir ga min mir faqin tukkee ko ci eh, concu lil isbaax jëmb ca waaroon wa mooy ne buy masaa nii lay def xakkasa dëppaat fekk baaroon mu ngi taxaw ci kaw bu ñëwee nii la koy masaayee xakkasa moo tamit ne wa fadlu ngeen ne tiim daal la trois muy suuf wam sa masa wam sax masaxal zahra saaidaka biti xasabu sa al ayman bay ndax joor ana noo koy masaay mi na bi kaffi yusra ci tënk càmm yo wa batnu ak biir ga biir gënat boo koy masaa mu ngi tukkee ko min mir fàqi tukkee ko na se ci conc wa lil isbaay jëm ba ca baarom wa wante bi ci gënat boo koy masaa ci cet baarom yi ngi commencé jëm ba ca mir fàqi biir gën mooy bii boo koy masaa ci mir fàqi fii ngay jógeate wàccaat jëm ba si baarom wa loolu wax ne wabat nu ak biir ga min mir fàqi tukkee ko ci conc ya lil isbaay jëm ba si euh, baaru baarum yooyu kon euh, faratay tiim ngir ne tiim kon bu ci njëkk mooy wax bisimilah ñaareelu mooy tiim ci ak suuf ñetteelu mooy jiital loxo ndeyjoor ci kaw càmmoñ ñeenteelu mooy jiital ah, euh, la feeñ ci xasabu ba ci bi biir ga ah, yooyu mooy ñeent ngeenelu a ah, tiim yooyu la mu lay jàngal na masaal nag la feeñ ci xasabu ba bay ndeyjoor boo déggee mi ne ay ci bi sukkuwoon kooku ngir woy wala wante noo koy masa mooy tënk loxo càmmoñ wa mooy mu masa biti loxo ndeyjoor wa ci tënk loxo càmmoñ wa fu muy tàmbali mooy ca cetug baaroom yi lay tàmbi lay tàmbali masa jëm ca mir wa jógeyaat ci mir wa wàccaat jëmaat ci cetu baaroom yi mu rombale ko jëm ci li nga xam ne mooy mir faq wa dal di ca biir wa jógee ko ca xasabu ba ca lem-lemu mir wa jëm ba ci mujjanteeg baaroom wa noonu la koy masa maanaam melokaani wa tamit wam sax wa wa masxuka ak masa sa al yusra wu càmmoyo ala zal maaya i ci bi yoon ni nga masayi loxo nday jor bo masayi ko biir tënk càmmoyo noonu ngay masayi ci nday càmmoyo masayi ko ci biir tënk loxo nday jor bo wa tamit wa masxuka ak masa sa al yusra bay càmmoy ala zal maaya i ci bi la yoon comme ni nga yoonu nday jor wa te dimbalee ko tënk loxo càmm yo mm. noonu booy masaa càmm yo noonu koy dimbalee tënk loxo ndeyjoor woowule mm. kon nag boo buggee jàpp daal ana naka la ñuy tiimee mm. mooy ne aji tiim ji daal bu ñëwee dafay dóor ñaari loxoom ci kaw suuf am na pàkk wu day ñëw dóor ñaari loxoom ci kaw suuf wax bismillah bu waxee bismillah ba noppi nag mu jublu foofu ak yéene ci faratay tiim daal di yëkkati ñaar yoxoom bu yëkkatee ñaar yoxam xool ñaar yoxo yi ndax am na lu ci taqam déen bu fëgg leen ndànk bu leen fëggee ndànk mu dal di masaana cilmaayam buy masa na bàyyi xel xóot xóoti bakkan yeeg ak sukki-sukki bakkan yeeg ndaxte comme que tiim moo wuutu farata moo wuutu njàpp yii yëpp da koy bàyyi xel ba ci roon sikkiñ ba ak diggante ñaari yëpp da koy tiim su nappee ba pare ne mu dóor comme que nag masaa na ci cëlmaay na ci kanam ga ba noppee mu dóoraat loxo ndey ñaari loxo ca kaw pàkk wa dóoru ñaaril wa ana lu mu ciy def nag boobaa nag bu ko yëkkatee ba noppi xoolaat fëgg li muy fëgg tënk loxo wa mu masaa ci ci biti masaa jëm ba ci mir faqi wa lem jëmaat nii fekk baaru ndey wa bu ñëwee moom ay masaa loxo bi laala ko dara ca kazalik mu defaat nii ñëwaat ba nii defaat nii ila mooy melokaane ak tiim noonu la tiimi kon daal tiim ci gàttal loolu te yomb lool ci kaw bu fekkee xam nga ko nag noppi na ci lool mu ngi lay jàngal charte yi wéral ak tiim mi ni wax charte charte yi tiim nag maanaam suruuti sihaati teemu charte yi wéral tiim ñeel farata ah baada duquli waxtu mooy gannaaw dugg waxtu wa kon nag du war moom tiim te du wér njëkk dugg waxtu mm. timis jotagut mm. nga ne xaaral ma tiimal timis ah man te wér mukk foo waxtu timis dafay jot nga tiim ah jokkale ko julli ga ah, ñu nangul la ko moo tamit wax sartoo sarta tiim baa di duqul waxtu gannaaw dugg waxtu ci lay wéree bu fekkee dafa tiim njëkk dugg waxtu ah tiim tiim ko wérul mi ne wafaal defal bii ci tiim fardan julli farata bi maanaam tiim benn farata nga si mën a juul julli maanaam dagunut muy julli ci tiim lu muy benn farata dong nag muy waxti yan aw faitan moo xam julli waxtu la wala julli gu faat la waaw benn tiim la ci mën a na bokk na ci sarta yi wéral tiim mooy tiim gi foo mu jokkale julli nga ne loolu nga bàyyi xel waaye tamit wafal defal bii ci tiim fardan farata faqat dong bi sabati ci wax ji gën a wér wax ji gën a sax ah wax ji wax ji sax la wax ji am dal tegtal la mi ne wafal defal bii ci tiim machita lu la soob mi naafila ci naafila boo tiimee man ngaa naafila lu la neex ci man ngaa julli lu la neex ci ay naafila xasal goog am na wante mu a mu axaran mbiru mu aji yéexee ko bi niyetin ci yéene ini tasalat ndeem jokk na ci wante bu fekk mu fekk nag dafay yéexee naafila wi ànd ak mu yéene woon ko ci wante mu jokkale ko ci gis nga sarte ci dëje man kat maa ngi mu ngi tiimal tusubaar mu ne man sama julli tusubaar bu ma paree dinaa ci teg ay naafila xanaa kon yéexee na naafila wi en même temps yéene woon na yéene woon na ko ci su ma jullee tusubaar bu paree dinaa ci teg naafila en même temps jokk na ko ci wante bu fekkee ne yéene woon na ko ci mu julli tusubaar toog ba heure yi ko neex mu dem naafila ci kon jokk amatul dog am na kon boo waa du ko mën a defati wa tamit wafal defal bii ci ti machete loola soob mm-hmm. min naf liñ ci naafila xasala góog am na mm-hmm. mu axaran mbir moom mu ñuy lu ñu yéexee mm-hmm. naafila bi mujj bi niyetin ànd ak yéene ini tasala te mu jokk ko ci ak julli googu la kon nañu ne bu fekkee ne waaye joo xam ne dafa tiim jiital naafila ci kaw farata kon booba bu buggee julli farata foo mu tiimaat foo mu foo mu tiimaat ndaxte lu tax muy tiimaat mooy farata gi dafa nekk wujuban lu war moo tax kon foo mu tiimal ko la la budda lahu min iadati tayammum wujuban li salaatul fard ndaxte dañ waxoon ne bu fekkee ne tiim na mën naa julli lu ko neex ci naafila wante day fekk mu yéexee naafila gi mu yéene ko jokkale julli wante dafa jiital naafila ba pare te jàngoon nga ci premier darsu bi ñu ne la kat aji teew te wér mën naa tiimal farata Eh, tiimal janaasa bu fekk janaasa gi ràññee na ko wante mënta tiimal jumaa aw sunna bi maanaam mënta dawal naafila ba pare soog a ci ak farat waxte waf al defal bii ci naafil marché de loolu soo mi nafi ci naafil xasal goog am na mu ak xëram mbir moom bu lu ñu yéexi bi niyeeten ci yéene ini tasala te mu jokk ko ci nag noppi ci loolu mu ngi lay jàngal tiim lépp lu yàq njàpp mooy yàq tiim ne yàpp di dina yàqu moom tiim bi naaqide ci lépp lu yàq ak njàpp tiim bàyyil xel lépp lu yàq njàpp mooy yàq tiim maanaam tiim dina yàqu te dina yàqu ak atteem ci lépp loo xam ne mooy yàq njàpp ci xadas wala ci sabab wala ci lu dul ñoom ñaar lu mel ne ak sikk wala ak murtad yi bu ci am rek borom tiimoon tiim nga yàqu na te wax nañ la xadas bu nga amee ci juróom mooy albawl wal xayit wal riix wal mas ila axiri te sabab bëri woon na wax nañ la an naw mu saqil ila aqiri lamz ila aqiri yëpp bu fekkee ne am na ci tiim tiim nga yàqu wala koo xam ne dafa tiimoon di sëpp ne tiim naa wala tiimam tiimam yàqu na wala mu murtad tiimam yàqu na moo tamit ne yebtul ne yàqu moom tiim bi naqari ci yàqu ak njàpp na lépp lu yàq njàpp na muy yàq tiim wante dolli ci lile mooy aw maa wala ndox yuraa gisee na ko qabla salaa njëkk julli koo xam ne ñàkk ndox moo taxoon mu tiim muy kabbarat fu muy kabbaree nañ wala njëkk muy kabbarat far mu gis ndox ñu naa tiim nga yàqu na ana lu tax nga doon tiim ñu ne a ah ñàkk ndox te gis nga ndox kon tiim nga yàqu na moo tax bi maanaa yabatula ay aydan bi ru'yatil ma qabla duqul fi salaa wante day fekk na wóor na ko ne bu fekkee mën naa dem di jàpp ji waxtu wi yaatu na kon nag man naa dem dafay tiim gi dafay yàqu dafay dem jàpp jàpp yi ñëw julli bu ko wóoree na balaa muy dem jëfandikoo ndox mi ñëw waxtu wi jeex ñu ko amat ngay julli nag loolu day fekk ne waxtu wa yaatu te mu mën cee jot benn rakkaa ci ñaari sujjóor gannaaw ba mu laabee laabu ndox dégg nga boobaa nag njàpp tiim gi dafay yàqu bu ko wóoree ne waxtu wi yaatuwut boobaa dañ koy wax na ko sa tim gi yàqul continue nga dem julli waaye tamit aw maa wala ndox yu rax gisef ne ko xabla sola njëkk julli wala aw wala sax biyaa si julli ga in zakkara ndem fàttaliku na mm. wala dafa nekkoon ku sàggan amoon na ndox sa mm. fàtte ne man am naa ndox te ba waral ko mu tiim mm. ba si biir julli ga mu kabbar rek ne am ah, man kenn de que amoon naa ndox de sama ndox mi mu barab sàngam mm. ñu ne ko julli gi yàqu na waaye keñ bu ko wóoree ne bu dogee julli gi mm. dem julli ndox ma jàpp ñëw dina ci am benn rakka mm. ñu ne ko dama julli gi na bu ko wóoree ne bu dogee julli gi balaa muy dem julli ndox bay ñëw di jàpp waxtu jeex ñu ne ko continuer nga julli waaye tamit aw bi xaw wala ci biir julli ga in zakkara ndeem fàttali ko nit ci lool ah noppi na ci lool mu nga lay jàngal masala woo xam ne yàgg ngay dégg imaam Hasan di ko wax ne Mawlana Cheikh ba mu feebaree am na fu mu toll eh, imaam Asan taawil masala wi ci masala wii ne masa Malik dafa waxoon ne du fay du julli mi ne asbax dafa waxoon nangam ak nangam ashhab dafa waxoon nangam ak nangam ibnu qasim dafa waxoon nangam ak nangam masala waa ngoog yu moo tax boo jàngee rek xam moo taxoon bàyyi ne jàngale ngeen def nit ñi nit ñi mi ne wax asqatu roote nañ ñoom borom xam a yi asalaat julli wal qada ak fay ana kañ lañ ko roote mi ne ana adamin wala si aji ñàkk soidawu pàkkam wa wal maa ak ndox koo xam ne dafa ñàkk pàkk wum jullee ak ndox wum laabee kooku rootal nañ ci ak julli rootal nañ ci ak fay julli li masa Malik Malik lii la wax maanaa daal julli dina rot ci mukallaf yi bu fekkee dafa nekk a ah, ah, di man di aji ñàkk ñeel pakk wala mu ñàkk ndox ñaar yëpp nag moo daje ci moom amul fu julli amul ndox e kooku falaa yajibu du waxtu wa te du fay gannaaw bu waxtu wi jeexee tamit du fay mooy gannaaw bu mu amee place wala mu am ndox tamit du fay loolu mooy wax Malick Malick loolu wax moo tamit ne وأسقط الصلاة والقضاء أنا عدم الصاعد والماء wante loolu mooy al mu'tamad ci waxi Malick waxu ñaari mooy Ibnu Qasim moom dafa wax ne war na mu joxe julli ca na manee wante bu jullee tamit terewut gannaaw tamit ba mu jekkuwaatee waxtu wa wala gannaaw tamit ba mu amaatee ndox wala gannaaw tamit pàkk wa terewut dafay fayaat julli dafay war mu fay gannaawam bu fekkee am na moom mu kallafam ndox wala ak pàkk loolu Ibn Qasim la wax kon Ibn Qasim masala def ci téengal lool mooy ne dafay julli na mane te terwu tamit dafa dina fay gannaaw boo amaatee ndox ak pàkk asbax dafa wax ni waru ci moom mu joxe julli ngir ñàkk gim ñàkk ñaari laa bi mooy amul laabag ndox amul laab ak pàkk bu mu jullee wante war na ci moom mu fay kooku asbagh la loo ashab na dafa wax ne war na ci moom mu joxe julli ca waxtu wa ci loolu ak njàpp ci loolu ak tiim ngir rot gi nga xam ne ñaari laabi rot na ko mooy said ak ma wante war na ci moom mu fay waru ci moom tamit mu fay ndaxte li annahu adaa inda ndaxte joxe na ko nam ma ne woon kooku ashba looloo radiyallahu anhum wanti fal aqwaalu fi mazhab arba ñom lool lañ wax mo taxon borom way bi di wax ne wa man lam yajid maan wala mutayammiman fa al aqwal yahkina mazhaba imam Hasan qasida bi zul indi yusalli wa yaqdi aksa ma qala malik wa asbaq yaqdi wal adahu li ashhabi wa man yajid ku amul maan ndox wala mutayammima amul lum tiime fa arbaal aqwaal ñeenti wax yi yahkina atani mazhaba mazhab masaa bi indi nañ ci ñeent ñeent masaa bi ñeent masaa bi wax nañ ci masaa bu Maalik moo wax ne yu solli wa yaqdi kooku Ibn Qaasim moo ko wax dafay julli te dafay fay ak sama qaala Maalik Maalik dafa wax ne la yusalli wala wala yaqdi du julli te du fay wa asbax asbax dafa wax ne yaqdi dafay fay wante du julli ashab dafa wax ne dafay jooxe wante du fay euh, du du fay li mooy mazaahib arba liñ ci wax ñoom ñëpp nag mooy koo xam ne amut ndox amut lum tiime a ah, lii lañ ci masala wowul parce que tuura dana ñoom alamaaw yi asalaat julli wal xada fay ana addi min walit aji ñàkk saido pàkkam wal maa ndox ah, nii lañ ah, nii lañ nii lañ ko atte wata mina baabun lii buntu wi lay jàngal attee mu wa faraidi ak lig tiim wa sunan ak sunay tiim وفضائل آه، وفرائل فرات التيم وسنن حسن التيم وفضائل أنجن التيم ومبطلات أجيق أجي فيرو المسافر أجي تكجي للفرد نيال فرجة والنفل النافل وأما أجي تيو إن صح في الفرج فرجة التيم وفي جنازة أكتي نيو يكون لا جمعة دساقن جمعة أو سنة ولا سنة من نافلة من دوك التيم نطبنا كده mi ne inaadi mu bu ñàkkee nag kifaayata ak doy min maxi ci ndox boobaa lay tiim aw xaaf wala mu ragal zo suq min borom feebar masira daa yokku jàngoro kooku tamit dina tiim aw min xudu daa wala soosog jàngoro dina tiim aw buti shifa wala yéex ak wér kooku tamit dina tiim ana fan la jilee yéex a wér gi mu ne bi aadan ci aada la sukkandikoo ne man ka su ma jëfandikoo jëfandikoo ndox mi dinaa yéex a wér aw an tabib wala mu jëlee ko ci médecin aarifam goo xam na médecin bu xam moo ne ko kat bu laal ndox boo jëfandikoo ndox yow kat da nga yéex a wér aw wala sa in xaafa ndem ragal na ala naf si jëpp ak kanam ba maa ak alalam kooku dafay tiim aw samanin ma wala njëgu ndox ma namaa yokk na mm-hmm. iji xaafan ci jégg doye mm-hmm. dafay tiim aw xaafa wala mu ragal mm-hmm. bistimaal yi ci jëfandikoo ndox ma kooku tamit dafay tiim awi talab wala sàkku lawu ñeel ko xurujal ixtiyaar ci génn waxtu wu ñu tànn wa dafay tiim insa ba ndem dem na noppi ci loolu furuutu faratey tiim xamsun juróom la mm. saahidu mooy pàkk tawar googu laab na mm. wane yéeneel mm. istibaa sàkkoo daganal julli wasa mi tuddal al akbar tëj mu mag ba wa darbatal uula ak dóor gu njëkk wa wal fawru ak toftale samma ah, foofule lil wax ji ñeel cil wal kafe ak ñaari tinq min am mi matala waj ak cil na trekilo mi ne wa sunna sunna yi kooku masu mooy masa mi yeddin tukkee ko ci loxo li mu faqay ne ànd ba si ñaari wa jëddi yeesa la ab dara ba wa war a tib tofti war fukk te te na nga jàppandal yaa noppi na ci mi ne wa fadulu ngi ne di tiim turaab mooy suuf wam sax masaxal zahra saaidika lu feeñ euh, sa xasabu wa al ayman bay ndey joor bi kafil yusra ci tënk càmmoyo وبطنه أك بيرجا من مرفقة تكوجي تنتوا للإصبع جنب شيء بارمي ومسحوك أك مساسة اليسرى وتشامي على زل معي كي بليون نبتلون والشرط شرطي التيم بعد الدخول وقت جنا دقو وقتها تلينك تلير وفعل دفل بي تيم فردا فرج فقط دنو بالثبت انت واحد جنا الصخ boo faal defal bii ci tiim maa cheta lépp loo soob mi naf leen ci naafila xasal goog am na mu ak xara mbirum lu ñu yéexee bi nieti ànd ak yéene ini tase leen dem jokk na kanat yàptula dina yàqu moom tiim bi naqarin ci yàqu ak njàpp lépp lu yàq njàpp mooy yàq ak tiim aw maay wala ndox yuraa giseef na ko qabla salaa njëkk julli mm. a ah, tim gi yàqu na mm. aw biha wala ci julli gi mm. in zakar la fàttali ko ne am na ndox tim julli gi yàqu na wa asqatu eh, rotal a asalaata julli ñoom alamaa yi wal qadaa ak fay ana adamin walit aji ñàkk saida pàkk ma wal maa ak ndox alamaa yi tamit wax nañ ca te indi naa la ci ñeenti masab yi ci wax Malik dafa wax ni kooku falaa yajibu alil qadaa'uha du joxe julli ca waxtu wa mm. te du fay gannaaw waxtu wa tamit mm. mooy bu amee ndox mm. ak pàkk loolu mooy waxi Maalik wante Ibnu Qaasim dafa wax ne wujubul adaa dafay war mu joxe julli ca waxtu wa te en même temps tamit dina war mu fay gannaaw waxtu wa bi maanaam ba nga xamee ne am na ndox wala pàkk asbax dafa wax ni du war ci moom mu joxe julli ngir ñàkk gim ñàkk ñaari laabi wante dina war ci moom mu fay julli ga ashhab moom dafa wax ni war na ci moom mu joxe julli ga ci waxtu wa ci lu ak njàpp ci lu ak tiim ngir rota ñaari laab ya maanaa ci ñàkk gi mu ko ñàkk wante waru ci moom mu fay ndax mu fay ñeel euh, mu fay julli ga ndaxte daf ko joxe woon te nam ma ne loolu mooy wax yi nga xam ne adamaa yi wax nañ ko te woykat bi tënk ci wa ma lam yajid maan wala mutayammima fa arbaatul aqwaal yahqiinu mazhaba يصلي ويقضي عكس ما قال محرك وأسبق يقضي ولا أداء لأصحابه ومن يجي كبو أمن ما عنده ولا متيمما دساغن أكتيم فأربع أقوال نينتو نينتو يحكي نعتني مساب مسحبي يصلي له يجي ويقضي ويفعي عكس وعكس صفانك ما قال له مالك مالك مالك دفعني لا يصلي ولا يقضي وأسبق وأسبقنا لما يقضي له ويفعي وانت وعددو جلي وعدا لأشعر من الأزل وعدا دفعي جخي وانت مومي دفعي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم إن إلمي ديك التوب دفعي نكتب الحمد لله دعوان وآخر والحمد لله من حين إلى حين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته